police mo len nek di dakh ñi ngi nonu ñi ngi non di daw parmi eux des confrères également ñu len ci nemaku nemmaku lan la lu xew les les confrères là seen ñuy daw la ngay seen confrères ñom ñuy daw donc je sais pas les raisons pour lesquelles ñuy daw may ko les raisons pour lesquelles ñuy daw ah ñu lañ sandi lacrymogène vous voyez vous voyez on nous gaze on nous gaze on nous gaze en tant que journaliste, on nous gaze. Waouh Voilà, vous voyez, donc, euh, comme nous avons vu cette image, donc, je euh, donner l'information, donc, de aviser euh, de ce qui se passe. Nous sommes lacrymogène comme nous avons vu cette image. C'est vraiment déplorable. Parce que c'est nous, je suis avec mon caméraman, Bou di impose buri ñu nous ñu lacrymogène on n'était que deux donc à être à côté Nous sommes... voilà donc sama caméraman bangi wax ne ci kawam lañ on n'était que deux hein. Nous, gazé nous. c'est vraiment déplorable hein. c'est vraiment déplorable d'autant plus que parce que c'est nañ en fait c'est nañ ay confrères ñuy daw et ça m'a étonné ça m'a vraiment étonné monsieur, nous, ndekete la police lañ doon daw dañ doon bañ ñu gazé len donc euh, arrivé à nous donc ma gis len ñuy daw donc sama cadreur bi néma non duñu daw parce que on est là pour faire notre travail et c'est lañ ex si seen ñu ñun ñaar ñu ngi taxaw ñu gazé ñu ñu gazé ñu donc euh, euh, ñu ngi koy dund nak ñu koy dund et vraiment pour dire vrai gazé ñu taxul ñu bayyi suñu liggéey gazé ñu taxul ñu arrêter suñu liggéey en tant que journaliste mom suñu liguey rek lañuy def defuñu lenen euh defuñu lenen ludul informer vrai et juste donc je vois pas l'intérêt à ce que ñu ñu koy xagn ñu ñu koy xagn parce que askan bi lañ fi nekkal askan be ñu tax a jóg ñu bayyi suñu yitte yi bayyi suñu njabot bayyi suñu soxla bayyi lepp ngir rek euh indi information ngir xama indi len xibar li xew ci dëkk bi waaw donc journaliste tay buñ démé ba bëgg ko xoxatal ci ligéyam cela veut dire que né on est dans un état vraiment qui est en train de sombrer donc dans la dictature. qu'est-ce qui se passe Abdoulaye Ndiaye qu'est-ce qui se passe. ñu lacrymé sen suñu loxo ñu dañuy liggéey ay professionnels lañ defuñ dara lu bon uh-huh. ñu taxaw ñu ñëw doo ñu lacrymé sen ci tank duñ ko sanni c'est pas normal baaxul. Les gens sont venus pour faire le travail. Nous sommes des journalistes. On est là pour faire notre travail. S'ils ont des gens à abattre, que l'on qu'à aller le chercher ailleurs. On est venus pour travailler, comme eux aussi, ils sont venus pour travailler. Nous sommes, tous là pour travailler. Voilà, Abdoulé Ndiaye, donc notre confrère, journaliste donc, qui vient d'être arrêté euh, du nom de Abdoulaye Ndiaye. Alors qu'il faisait tranquillement son travail. Euh, yóbbu nañ ko mu di suñu naatangoo boo xam ne mu ngi nekk DTV moom lañ jàpp noonu moom lañ arrêté noonu donc yóbbu ko. ñun xamuñu sax fan lañ jëm te amuñu kenn kuy taxaw pour man ñun euh, organes yi nga xam ne ñoo ñu war a protéger pour man ñoom ñoo njëkk nekk ay politiciens jàppale wuñ ñu ñun amuñu suñu carte presse représenté wul dara biir Sénégal Sénégal boo fi nekkee journaliste tekki woo dara ah.

nañ ko teg ci texte ñi mu concerne mooy ñi nga xamante ni ñoom mouvement ñoo ñom ñone ñoo dañuy marche préfet bi interdire leen mais un journaliste bu fekkee texte daf noo jàngal né lepp lu xew ci vie publique askan ñun dañoo wara wacc sur le terrain jàngat ko jël ko ngir askan bi xam li xew mais encore une fois buñ nu ko téré donc wax a fa droit à la liberté de la presse wax liberté ngir def lu mais on est là pour am ay li fi xew ngir askan nga situation d'accord, ni la policiers sank ñu ngi droit ne fofu nous. ndax mais quant à ñu confrères wala tay ñu japp tay ji ni suñu mbokk euh, di de quoi on n'a rien contre nous. Nous respectons nañ gens ndax savons eux qui assurent notre sécurité là où il y a danger nous nu Nous jàppul ni fii danger ngi fa fay mais quand nous voulons atteindre nos droits, nous devons, encore une fois l'interdiction de la marche ça concerne le mouvement citoyen euh, nous waaye nag concernul journaliste bi donc c'est la vie publique nekkul loo xam ne privé donc on a le droit tey ji ñëw jël information jàllale ko askan wi. situation yi nu mel nii euh, lan lañ mën xaar lan la force de l'ordre yi mën a doxalee ngir rek man nu gën may ñu liggéey ni mu force de l'ordre li mën a doxalee prérogative yi nga xamante ni moom moo leen war. mooy assurer la sécurité des citoyens ñoom itam dañoo am kilifa marche bi biñ ko initié ñom téré nañ ñi wara marche donc ñëlé buñ bu bop am war nañ wacc sur le terrain organisé ndax itam nak ñëlé dañ leena téré lolu nak ñom daf leen war tamit kenn du leen ko téré ndax seen liggéey la mais nak li ñu wara def moom mooy ragné ci biir mbolo bi ñi nga xamanteni dañ ci bokk ak ñu ci bokkul ñun nak wax dëgg fa yàlla nag dañuy solidarité ci suñu confrères yooyu nga xamanteni japp nañ bu ñu sañon ñu bàyyi leen ta xamné ne seen liggéey leen doon def encore une fois ñu ragné l'interdiction de la marche du journaliste ñoo lànk la ndax ñom ñone ne dañuy bëgg euh, casse hausse de la prix man du prix de l'électricité donc encore une fois li ñuy ñaan tak der ñu xam ñun ak ñom wax dëgg fa yàlla nekkuñu ay ennemi. déedéet ñun on est venu pour faire notre boulot ndax tay bëri na lo xamanteni tay ji ñom ñu ngi koy liggé ci ñun lay jall. donc dans un pays tay organe de presse wax dëgg fa yàlla danoo wara rafet rafetlu liggé mais ñu ko bundu xatal ci liggéem ndax lepp lu fi jàll askan wi yëg ko ci xibaar ci ñun la jaare donc ñun ak ñoom tey jii ni famille la war a doon waaye warta doon loo xam te tey itam d'accord naa bu fekkee am na ci ñun ñoo xam ne xëy na enfreindre nañ loo xam ne tere nañ ko ñu ngi ciy jégalu waaye nag du kenn ci ñun ñuy jàngal nañ la kat da ngay jàmmaarloog force de ñoom taxu ñu ñoo jug li ñu tax a moom mooy information par rapport ak xew-xew gi am. non loolu métti la loolu métti la il faut le dire parce que journalistes yi da aussi ñun dañ fi ñëw pour def suñu liggéey ñëwuñ fi pour bu ndoxtaal kenn ñëwuñ fi aussi pour wax euh, euh, lenn loo xamante ni dafa tegg yoon Euh, sama bi biñ koy jàpp mi ngi téye sama micro di commenté ñu dóor ñu lacrymogène bi mu koy dénoncé euh, commandant la xooma lan ñëw yenu ko yóbbu jox ko euh, deux policiers civils ñuy dugal ko ci camion bi ñaaw na parce que depuis ci suba aussi ñu ngi ñu koy def depuis ci suba fu ñu taxaw ñu bundu xataal ñu yéen ñii seen premier live dañ koo dagg ndax dañ leen a dóor lacrymogène xëcc seen fil bi ba seen fil bi yàqu xam nga loolu aussi rafetul te ñun ak ñoom on se complète ñoom bu ñuy def seen enquête il se base sur les comptes rendus de presse pour mën a yaatal seen enquête amul benn policier bu la ne enquête am eh, eh, avancé na te amul euh, soutien wala apport wala presse apport eh, indilu ko benn apport amul lépp loo xamante ni euh, police mu ngi koy liggéey ñun dañ koy liggéey bi ci njëkk li nga xamante ni man jort naa ne ci lañ meralee journaliste ba tey mooy marche gi Mari Sagna bi presse moo leen ko yëgal bu taxatoon nag presse bi danañ marche dem bay bay yegg ba def lu ñu bëgg a yegg taxaw foofu jubilé def lu leen neex mais yàlla ak presse ñoo tax ñoom ñu arrivé bien vrai que ils sont mais aussi nañ bàyyi nañ liggéey presse dañ daan liggéey bu njëkk ba policiers yi dañ doon jiitu presse bi nekk seen ginnaaw ñoom ñuy dóori seen ñuy filmer dinaan problème du am mais nañ continuer ci système boobu mais boo ñu bëggee dàq boole ñoom manifestant yi mais dootoo xamante ku du journal ku du journal ku ne nga dóor te lii ñu def ñoom ñoo ko tey man ñort naa ne puisque bi ñuy taxaw ay micro lañ fi gis xam nañ ne journaliste la ñu dóor leen ñaaw na lu ñaaw la parce que ñun on a

fu ñu neex lañ war mën a dugg tant que ñu ngi fi ëpp si ñun dañoo sol gilet yore seen presse dañ bàyyi ñu liggéey suñu liggéey jox askan bi xibaar bu wër te woo si en de seconde ñu ñëw fekk journaliste caméraman ñëw jàpp ko mal mëne ko parce que lan day jële image liggéeyam lay def ci loo xamante si lay liggéey di suturlu ñu jàpp ko noonu noonu xam nga yóbbu ko yóbbu ma ba ci sans motif dañu dem commandant bi na leen kii lan la tax ñu andi waral début bi napp nañ ma wax loo def ay affaire yooyu noonu xam nga ba am ñu bëgg a def ay affaire mais xam nga benn chef moo fa nekk chef bu baax moo moo ne bàyyi leen jàmbur ñu bàyyi ma ma toog si kaw mais xam naa ne nag euh, fekkoon ne euh, kenn nekk fa koo xamante ne ku mel ku ku am xolu yërmande la dinañ ma jaxase foofu dinañ ma dóor mën na amaana sax ñi gaañ ma parce que intention boobu lañ amoon au début mais dañ dem ba ci biir ñu bàyyi ko